bi sifflé na diggante Ziza ak Gorel ñaari mbër ngay léewtoo Ziza moom lañ jàkkaarloo ngemboo ngemb lu weex li ko morceau bu ñuul bi Gorel moo ñëwoon ginnaaw Gorel moom la wax bandi géew tey <laughs> bandi géew tey la ñuy xam bandi géew du bandi moom Gorel moo ñëwoon ginnaaw ba tey ñaari mbër ngay léewtoo pour bañ dalagul ñoo ngi xalaat a yàgg nag. di respecté leen seen coach wax. jàpp leen ni temps bi léegi dafa wàññeeku. cinq minutes la si petit yi. da ngeen di jël bu ngeen dajee wu rek jël avertissement <laughs> yi ni leen fi nekkee jaxase rek bëre leen. <laughs> tey bi arbitre waaye dëgg la seen liggéey. ñoo ngi avancé par nànk si Leewtoo bi. moom gureel waaye demul. Kourel day soob dangaan wàcc nañ Ziza ndag na Leewtoo ba wàcc na ba tolloog moom Kourel Kourel wàcc na Ziza wàcc na na ba tolloog moom Leewtoo Leewtoo baa ngay accéléré par ndànk ndànk yaa nga koy yokk ndànk waaye ba tey dara cokkaas amagul Kourel mi daa waaw waaw abbi si benn avertissement verbal. Habib bi dagg na Leewtoo bi daal di sifflé. verbal mu gaaw mu toll nii. di jël avertissement wax na dëgg. waaw cey grand combat ba. dëgg la sifflé waat na génn seen diggante moom arbitre bi. bëre leen bis dafa rëy. ay jaxasekat lañu. <laughs> ñoom. ay ñaari ponkal. abit da neexul suuf la génn seen diggante ñu leen dóorante leen. xeex leen. maa leen ni loolu doy na waar. ñoom si béteel bi ñuy wax ñoom du ñu wax. maa la ko wax. adversaire ñoom bu ñuy wax du ñu wax. ñaari xale yi ragal naa dinañ jël avertissement doo ko bëree. temps bee ngi dem de. waaw dinañ jël avertissement doo ko boo moytu. cinq minutes la leen may. waaw seen Leewtoo lu mu dee dee jël na un une minute cinquante. suuf moom Ziza. ma ne tibb suuf laa xamul pour lan la. Ziza tibb na suuf raxasu waaye taxul mu dem. Gorée ngi taxaw di ko xaar. <laughs> bu loxo bi laalee rek dem <laughs> maa la ko wax avertissement lay jël waat na. bëral leen waay. waaw avertissement pour pour ñoom ñaar. bis bi ngeen di bëre dafa rëy. kenn ku ci ne jël nga benn sifflet war na. bis bu rëy ngeen di bëre. ak ki nga xamante ne mooy Ziza. bisum Papa Sow Siteu. mënta yomb. ku si am sens bu da nga war a wane sa bopp. mënta yomb. wane leen seen ma lii lii maa ngi ko gëj a gis ñëpp Franc ak Sokh. wallaay ndeysaan. jëlee stade bi a remplir lu mel nii. déggal ma loolu. ma ni image bi rafet lii mooy làmb. nii ko xale yi def. lii mooy Sénégal yàlla na ci jàmm jëkk mujj ji. lii mooy suñu cosaan. lii lañu xam. lii lañu miin. lii daa dagg na léew bëgg. nee na ko ñaari mbër bëri wu ñu wuñu. moo jaaxal man. ñaari mbër bëri wu ñu wuñu. dafa mel na te wax dafa metti man ak léegi moom moo tax ngay pause di ko baaral. da ngay mel ni kiy togg ceeb bi jën da ngay baaral. maa la di tëmb ku baaral ngi baaral. <laughs> comme que ñoo ngi baaral ñun tamit dañuy baaral. ñoom moom ñu ngi baaral <laughs> waat na. at bi jaxasale ñoom ñaar ndax ñu bëre. waaw waaw jërëjëf at bi. disqualification ba du ci am. waaw waaw am na ñaar. bi ngeen xeexee bunt am. bunt amee ngeen jàppante. xeex leen baa ngeen bëre. bi ngeen jàppante rek mu jeex. taxul di def andiwu làmb moom xeexu leen bëriwu leen waa Parcelles yi ngi nii tekk di leen xaar waa jàmm gën na tekk di leen xaar gaaw leen si diggante Gorel ak Ziza ñaari mbéy ya ngay lewtoo jublu si saako ya ku nekk am nga ñaari avertissement Papa Sow mu si ay échauffement maa la ko waral daamal màcc la. Siteu mu ngi si ne tekk tekkaaral. waaye. di ay débat bi jax seen nit ñi bëre waaye. nii nii mu. <laughs> wallaay. Ah, bu ngeen demee teg ma ma teg gàcce. li mu wax fi yëpp ngeen machine yi toi say mbir yi jeex na waaw waaw waxoon naa leen ni ak keneen jugoon na bay fallu jugaan na waaye combat ba arbitre sifflé waa na diggante Ziza ak Gorel ñaari bëri nag dem nañu ko fàttaloo ñu ko <laughs> moo ah moo neex waay bëri bi cuqul ambiance baa ngi cuq kaay déggal ma lii mbokk internet bi Wassare Lamb tey 6 novembre 2022 fii ci arène nationale diggante Papa Sow nekk Parcelles Assainies ak kii di nekk Lansar waaye xalil nee na ma seet maa ngi si combat bi de combat bi dañoo bëriwul dañoo bàyyiwul ma nekk si ambiance bi Gorel dina dem dina initiative dina dem maa la wax lii day dem moom tamit taxaw Moussa dina dem Kara waat na si ñaari mbër diggante Ziza ak Gorel. Ziza di accéléré combat bi Gorel tamit moo dem. ñoom si biti saako dem ñoo ngi xeex moo ngi koy topp daw li la la nii xanaa muy bëreel déedéet moo ngi daw waaye yéen li muy def nii li <laughs> mooy li koy pour mieux sauter xanaa looloo kay bu leen ko tuddee daw déedéet daw day ñaaw wax leen reculer pour mieux ñaari mbër yi jàppante tey xanaa fii dara dina fi am si diggante Ziza ak Gorel moo ngi ñaari bëri ñoo ngi jàppante. jàppante nañu waaye jigéen nañu. at bi toogal. père puusal. père puusal. tapa plaque déedéet kal na ko déedéet demul. policier puusal. waaw dafa mel ni waaye at bi da koy bàyyi mu dem. da koy yanu da koy yanu. ñani ko demal Ziza daan na ko wala Gorel trois appuis am na daan na ko maa la wax lii eh, daan nañ Gorel Ziza daan na Gorel dafa mel moo ngay julli <laughs> mbër maa ngay julli di sant yàlla sunu borom waaw jar naa sant de Mama